بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال jëlee nañ ci suñu sang Anas ibnu Malik dal na yàlla gërëm ko mu ne sayiduna wa mawlana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne taqabbalu li sittan ataqabbal lakum bil jannati warlul leen ma juróom ma warlul leen hal janna qaalu maa hiya ñu ko yow ki yàlla yowal yooyu yana qaal ida xaddatha ahadukum fala yakdib mu ne kenn ci yen di waxtaan bu mu fenn wa ida waada fala yuxlif ku ci dëlee bu mu wuutee dëhalam wa ida tumina fala yaxun kuñ ci hóolu bu mu huruj wa guddu absaarakum sëggal leen gëmmu leen seeni gis ba du ngeen ci xollu xaraam kuffu aydiyakum fekk leen seeni yoxo waxfadu furujakum wattu leen seen pëy juróom benn yi la yonentu sallallahu alayhi wa wax ne nañ ko ko warlul mu warlul ñu aljanna te suñ làmmee ñi ba duñ wax lu dul dëgg fexe ba luñ diggee ñu respecté ko promesse bu ñu def duñ ko xuutee buñ ñu hóoloo buñ xuruj buñ wor yonent dana wax ci beneen hadis ne jikko bu ne mën naa ne ci ab jullit ba mu des xuruj ak fen mu ne yi tamit suñuy bët ñu gëmm ko ba duñ ca xool luñ ca warta xool suñuy yoxo ñu fekk ko ba duñ ca téye luñ ca warta téye duñ ca laal luñ ca warta laal suñu pays ñu wëttu ko ba duñ ko dugal fuñ ko war sa dugal yal nañu yàlla dimbale ci juróom benn yooyu te may ñu aljanna ñun ñëpp yaa rabbi ci lu dul xisaab ak ci lu dul mbugal hadis ji Abu Yaala moo ko solo ci majmaawu zawaid hadha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama